mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM dalee nag jàmm ci seen émission ànd aar aaru nañu ko baaxoo dimanche bu jot ci euh, waxtu bi tey nag euh, mooy euh, waxtaan bu mujj ci ànd aar aaru bi nga xam ne ONG mad ak plan international ñoo leen koy jagleel jëm ci mbas mi ni nu kaa xeexee waaye itam fi nu ci toll ci réew mi. tey nag ngir euh, tëj euh, jotaay bi dañoo fekk ci kilifa gu mag euh, ñëw ba Kër masaar muy jaraaf Makhtar Diop ñu gën ko xam ci jaraaf Aldo ñu ngi lay ziar sang bi di la jox sa wàccuwaay am mbégte lool jàkkaarloog yow ci waxtaan bi. maa ngi lay nuyu bu baax di la fay nuyu di nuyu Abdou Khadre président Ahmad di nuyu directeur Diallo ak mbooloo mi mu àndal di nuyu waa Kër Massar yëpp. chef de village yi ñu ngi fii délégué de quartier yi ñu ngi fii Covid oblige moo tax tey ñu doxalee ko nii je pense que bi ngeen di dugg si les mesures barrières yi ñu ñuy wax en passant par le directeur ak président yëpp respecté nañ ko port de mask di utiliser gel distanciation yi kon li ñuy ñaan rek yàlla nañu dem ba. effort yi nga xamante ne si njiitu réew mi bi yëfi duggee si Sénégal ak léegi li mu ci def teg nañ si bët kon li ñuy ñaan suñu boroom ñu toog ba naan zéro cas au Sénégal ba nga xam ne bu ñu xëyee la matin dix heures bu ñuy présenter bilan wu journée bi ñu ne tey zéro cas ñuy ñaanal ñi nga xam ne génn nañ àdduna yal na leen yàlla xar àjjana ñi des ci lali hôpital yi yal na leen yàlla fëgg seen bopp ba delloo siwaat leen seen kër mais ñuy wax ne rek covid bi mi ngi fi des na kon nañu continuer xeex bi ba daaneel ko une fois de plus ñi ngi remercier ñi nga xam ne ñoo organiser lii ak tey suñu jarbaat bi nga xam ne ñëw na fi tey seet suñu muy xale la waane ay responsabilité la yor ndax ko xam FONGIP xam responsabilité état xam na responsabilité yu rëy la yor kon ñu ngi koy dalal jàmm loolu la doon wax comme introduction jërëjëf euh, jaraaf euh, Mactar euh, Diop ñu gën ko xam ci jaraaf Aldo ni mu ko annoncé nag ñu ngi tey ak directeur des opérations bu FONGIP di Amadou jàlloo defoon nañu ak moom waxtaan justement ci taxawaayu FONGIP ci mbas mi mais tey dinañu ci ñëw ndax émission bi ñaari pàcc lañu ko nar def pàcc gu njëkk gi ñu jagleel ko riposte Covid côté jàngoro ji côté mbas mi waaye itam ku ne xam na ne mbas mi dafa am njeexital yoo xam ni dernièrement génnee nañu rapport nga xam ni euh, moom moo ñeel ménage yi ak euh, mbas mi conséquences yi mu ci am mm-hmm. loolu nag moo tax état itam daal di euh, fagaru ci riposte économique FONGIP nag am ci rôle bu spéciale dinañ ci ñëw ak directeur Amadou Diallo ci ñaareelu pàcc bi Abdou Khadre Gaye euh, njiital EMAD moo ñëw tey ci Kër Massar indi ñu ci jaraaf euh, Aldo jaraaf Mactar jëpp Abdou Khadre euh, ñu ngi lay nuyu yow itam di la dalal jàmm amaat mbégte daje ak yow ci waxtaan wi jàkkaarloo itam ak rajo neex ji macha allah. jërëjëf Fathiam donc vraiment ñu ngi bég ci ci accompagnement bi nga xamante ne Rewmi FM mu ñu koy defal am mbégte teew tey fii ci Kër Massar. ci kanamu suñu kilifa jaraaf maxtar jóg ndaxte bi ñuy tàmbali mbir mi euh, dañu jaar ci bunt bi muy grand sëriñ Abdoulaye Makhtar Diop ñu waxtaan moom mu jox ñu engagement tegtal ñu ay nit ne sensibilisation bi ak waxtaan ba askan bi dégg ko am na ñi nga xamante ne soo leen jaaree ci ñoom dina yomb bañ koy def nag boobu ba tey moom mu nekk kilifa gi nga xamante ne moo ñu ñaanal ba ñuy tàmbali liggéey bi ñu ànd ci ak ONG plan international ba mbas bi dalee ci réew mi rek dama saisir directeur plan waxtaan ak moom mu ne nañ def benn plan de riposte ba nga xamante ne dañ koy def si juróom benn fukki quartier ci Ndakaaru ñu tànnandoo quartier yooyu def intervention bi former ñu ñuy former yóbbu ay jumtuwaay waxtaan moo ci ëpp solo parce que loo bëgg dundal te xamoo ko doo mën a dundax moom te dañu ne feebar bépp bu àddina doomu aadama xam rek dañ koy daal di mën a peej noonu la ñu defee ba tey juróom euh, ñetti weer ñu ngi ci wa ñu ngi waaj a dugg ci euh, njeextal bi def évaluation xool fan la réew mi toll ak feebar bi ak yan tànk lañ ci war a jooxe euh, il est vrai que ba ñuy def liste bu njëkk bi Kër masaar bokkoon na ci quartier yi ñu waroon intervenir directement hmm. malheureusement dafa am gàllankoor ba amul mais ñu ne woon nañ def première phase bi bës bu ñuy dugg ci deuxième phase bi nag ñu ñu ñu xool nu ñuy def ak Kër Massar directeur sax du Diallo bi mu ñëw di ma seet si loolu moo ko taxoon a jug waaw ma xam ne kii kat moom bëgg na koñam te koñ bi amel na ko njëriñ mu ne vraiment il faut que ñu def fa dara su fa émat deful dara ak plan man dinaa wuti ay partenaires yu ma jàppale ñu def ko ma ne déedéet nañu ànd parce que suñu joxantee loxo rek ak jaraaf loolu dinañ ci mën àgg yàlla nañu yàlla jàppale ba ñu àgg ci sama kàddu dama koy gàttal parce que dafa am ñi nga xamante ne ñoom la seen kàddu di gën a yomb na muy duggee ci noppi askan bi moo tax ñu seet si la ñu ngi fi fekk itam nga toog ak ñoom muy chef de village ak sa ay frères yi nga xamante ni yéen a bokk ak délégué de quartier am na si sax jigéen ci délégué de quartier yi j'ai été vraiment ma surpris moom xam naa foog ñu xool lu ñu koy jàppalee pour mission mu mun ko mëne à terme man si maa ngi waa ndax waa EMAT Alpha Ba Lassana Sagna donc ak Babacar Souaré tey jii waroon na ànd ak euh, Baba bu plan international moom mooy riposte Covid bi wante waajuram dafa wàññeeku ñu ñaanal ko yàlla mu xare ko àjjana moo tax ñëwul tey wante la nga xamante ne moom fi taxawee man mun naa ko taxawee di remercier vraiment directeur ak ñi muy àndal yëpp di ñaan nag suñu delloo sa kër ya xam naa ñu ngi koy def mais fàttali wàññiwul dara liggéey bi nag ku nekk njëkk ci boppam oo sa waa kër sa doom sa mag sa rak sa yaay sa papa waxtaan ci biir kër gi pour que waa kër gi fagaru par rapport ak riposte bi loolu bu ñu ko xeeb benn nit bu ñu sensibiliser rek jéegalu bu rëy bu ñu def ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu nekkee nit nag dafa gaaw miin nit day miin lépp lépp lu ñëw di gan ak lu mu metti metti dinañ ko tiis jooy ko ci njalbeen ga wante su yàggee ñun rek ñu miin ko yàpp ko moo tax lu bëri mën fi samp ay reenam kon tey jaraaf foofu laa yem bàyyi fàccaam mu ñu wax yow nga waxtaan ak askan wi suñ ci jugee nag ñu jublu si suñu frère Amadou jàlloo mu wax riposte économique bi parce que suñu xeexee mbas mi ba daan ko itam mbas mi am na ñu mu daan am na jigéen yu doon liggéey liggéeyatuñu am na entreprise yu ubbi woon doxatul parce que mbas mi dafa taxawal lu bëri moo tax programme bi nga xamante ni chef de l'État teg na ko ne suñ fi jëlee Covid bi nañ jàppale nit ñi pour nasax gam leen nasaxal ñu mën ko jéggi je crois que loolu am na solo trop surtout ci ndaw ñi ak jigéen ñi parce que benn jigéen bu defaru ci réew defar na kër defar na quartier defar ñi ville kon boog jigéen ñi nañ leen jox seen àq bu baax ci mbir mi ak xale yi ndax ëllëg xale yee koy nekk li te war nañu fexe ba xale yi ëllëg lu mel nii bañ leen bett ba sonnalee nu mu ñu sonnalee donc jaraaf ma bàyyi laax kàddu gi nga waxtaan ak lébu gi waxtaan Sénégal waxtaan ak àddina asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Abdou Khadre gay président EMAD euh, kon lëkkaloo ak euh, plan international ni mu ko waxee baba si yore euh, wàllu Covid bi ñuy xeex mbas mi ànd ak itam réew Rewmi FM boobu ba tey ci émission yi nga xam ne dañ leen koy jagleel dimanche bu jot ci waxtu bi jaraaf nag Abdou Khadre yaakaar naa dañu koy tiré chapeau balaa ñuy tàmbali ndax délégation bi fi toog yëpp exigé na ci ñoom ñu takk masque te ba ñuy dugg itam gis nañu ni mu ñu teeroo ci gel gi mais ci distanciation physique bi loolu am na solo ci kilifa. ndax euh, ñoom ni nga ko waxee ñu am solo lañu euh, ci mbir mi kon bu ñu leen gisee ñu jiitu ci xeex bi euh, suñu xel day dal jaraaf ñu nuyuwaat la gërëmaat la laaj la nag noo dundee mbas mi ak waa Kër Massar ba mu dooree ba tey. waaw comme ni ma la ko wax si njëlbeen gi kii toog ni Abdou Ndiaye mooy chef village bi sama rakk la Mar Diop mi ngi fi Ngone Mbaye Masso gi Diop. ndax te dañ ne nañu choisir ñi nga xamante ne si ñoo mën a fekkee yëf euh, Kër Massar nag mun naa ne mention spéciale ku dégg Kër Massar xam ne Kër Massar li fi yeewoo say doomu aadama ñun ñëpp dañu tiitoon koof présidente salon de coiffure yaa ngi fi ñoom bokk nañ si ñi nga xamante ni si mbas mi gën na leen sonal pour plusieurs raisons bi ne yëfi dugub fi ne la ñu préparé ñëpp tiit pour Kër Massar compte tenu de la position de Kër Massar ndax lii rond Kër Massar li fiy wàcc kuy dem ñàkkoro fi ngay jaar kuy dem ñàgg fi ngay jaar kuy dem Malika fi ngay jaar kuy dem yëmbal croisement Kër masaar moom yaakaar naa ne ku ko gisule dégg ko hmm. mesure yu ñu jëkk jël mooy tere njaay mi ci rond Kër Massar loolu lu ñu amal solo la woon mais comme li Abdou Khadre di wax ne lu bees ndax Covid bi tamit ñëpp la tiitaloon ñu remercier président de la république une fois de plus ndax moo ne nit ki boo ko nee toogal tamatul jàpp war nga ko accompagner ñun li ñu jëkk a def mooy sensibilisation ñu wax nit ñi ne Covid bi amagul garab mesure barrière yi mooy lii ngeen fekk ñu di ko def. le port du mask émission bi ma jëkk invité RTS c'était au bi dama ne nañ généraliser le port du masque bu ñu généraliser le port du masque yaakaar naa ne dina xaw a wàññi mbir mi mais tey dans le monde entier reconnaître nañu ne le port du mask bokk na si lu am solo la utilisation gel bi kon tey ñi ngi fàttali nit ñi di ko fàttali suma bopp di ko fàttali waa Kër Massar di ko fàttali collectivité léegi le monde entier di ko fàttali Sénégal gépp kan ne benn Covid si dëkk rek surtout buñ naan communautaire lu rëy la boo dee départ benn ñu naan dañ ko exporté ñu naan ñaar ba tey ñu ngi si ay milliers hmm. nañu sant yàlla te la ñuy dégg fële dégguñu ko Sénégal kon nañ ko sant yàlla te continuer xeex bi ndax ki ngay xeexal comme gisoo ko mënoo kaa galgal mënoo kaa bitir ñi nag yàlla bi ñu booleeg kilifa diine wax nañu kilifa aada yi wax nañu ñu continuer ñaan di continuer jël suñuy mesures barrières léegi yaakaar na c'est chanson boo xamee ne on se lave les dañuy raxas loxo yi baa ñu utiliser gel bi sol suñuy mask kon loolu bu fekkente ne sax nañ ci yàlla dinañu dimbali ba nga xamee ne dina naan zéro cas loolu nag li koy indi mooy communauté bi jàpp si munu mënuñoo fopp un policier def ko ci gannaaw chaque sénégalais léegi dañ ko war a def comme ni ñu naanee attaaye di ko def muy ceeb nañu ko def le port du masque ñu di ko ñu di ko marier sax ak li ñuy sol mhm. il est bon que gis naa jigéen ñi dama ne du masque bi ñu jëlee ci pharmacie rek mhm. parce que liy jaay ci pharmacie ma masque mënu la compenser lu mat nos 16 million de sénégalais mhm. ñuy gërëm aussi l'expertise sénégal bi nga xamante ne si bi yëf yi amee rek ñoom ñëpp dañoo daw dem ci masque yi loolu aussi lu si am solo la Abdou Khadre soo seetloo biñ ne dakaar le port du masque doit est obligatoire seetlu na ni yu fi am na lu koy mi ngi wàññeeku kon ñi ngi ñaanaat di ñaaxaat xale yi surtout les jeunes football neex na trop ku gis Sénégal fi mu toll nga xam ne ñun amateur làmb yi amatul làmb football amatul ngay seetaan championnat d'Angleterre tribune yi kenn du fa nekk te joueur buñ si nekk buñ la waxoon li ñuy fayeeku mën naa fay cinquante minutes ñu ne terrain bi kenn du leen seetaan kon ñu xam ne Covid bi bari na lu mu gàllankoor surtout nag ñun pays yi nga xamante ne si du ñu pays développé bépp coopération bu jàppale Sénégal ci mbir mi ñu ngi lay gërëm di lay sant ah bu Covid bi passé nag am na loo xamante ne si war nañ koo mën a jàppale askan wi. loolu moo war a tey suñu jarbaat bi teew fi. dinañ dinañ ci ñëw jaraaf ñu des ba tey ci mbas mi ndax ni ma ko waxee sànq ñaari pàcc lay doon. dinañu ñëw largement ak euh, directeur Amadou Diallo ci riposte économique bi euh, mais c'est Kër Massar seetlu woon nañu benn période cas communautaire yi bari woon fi lool. ni nga ko waxee c'était aussi euh, normal ndax dëkk bu toll ni Kër Massar macha allah dafa mel ni rek ndakaaru bu nu koy xayma ñu bari fii la ñu dajee donc normal na cas yi gën fi bari. Mm. mais bi mu taree ba tarat ba jaaxal sax ñu bari. terrain bi di def aussi ay euh, ramassage ak yu demee noonu yéen ban taxawaay ngeen ci amoon ndax ku ne xam na ne euh, lébu par exemple dañu xam duggalante sénégalais du manière général mais lébu en particulier ci dëkkin yi ci duggalante gi demlante gi dikkalante gi yéen à votre niveau yan mesure ngeen ci jëloon. bon mesure yi nu si jëkk jël euh, mooy nekk ci disposition askan wi li ñu yàlla jagleel mooy ñu jënd ceeb jënd diwlin jënd savon kii nga xam ne moom la fi yàlla teg muy suñu député maire ñu teg ko ci loxoom euh, quartier bu ci nekk nag comme ñun xamante ne ñu seet nañ ñi nga xam ne ñoo fa gën a néew doole ñu defar ay ticket su ma mag bu jigéen doom a ngi ni toog benn saako ceeb duggul këram chef village bi sama rakk la benn saako ceeb duggul këram te presque jënd nañu deux tonnes et quelques grand sëriñ aussi woowaat ma keroog cëriñ laa jëlee savon bi fa laa jëndee jëlee huile bi fa ko jëlee mu jox ma ko gratuitement pour mu ñëw aussi distribuer ko askan wi. pour nit ñi mën a toog ci kër yi. pour nit ñi mën a toog ci kër yi am lu ñu jàpp ndax boobu c'était le début. Mm. loolu moom def nañ ko. continuer nañu aussi di dem ci quartier yi di sensibiliser nit ñi mm. parce que li ma la wax ci communautaire yooyu ngay dégg. dañu ne woon tëj nañ marché yi parce que assouplissement bi président defoon parce que boobu yërëm na nit ñi léegi nag ñi demoon ñëpp ñëw a ah, mais terewul préfet bi nga xamee ne moom mooy préfet département dane d'accord assouplissement mais li mu doon bañ démb bërk démb ci rond bi daal nit ñi di dajee di def njaay ak diw génn daal loolu dootu fi am mais may gërëm une fois de plus waa Kër Massar yëpp ku ci nekk ci quartier ba nga ne muy délégué de quartier yi woo nañ leen ne leen continuer leen sensibilisation bi loolu aussi ñoom def nañ ko li ci des nag mooy bu fi ñuy waxee yow comme dañ naan mbas maa ngi fi daal nañu continuer loolu ñu doon def. d'accord justement foofu laa doon bëgg a ñëw mbas maa ngi fi donte am nañu une tendance euh, baissière. gis nañu kaay yi mi ngi euh, wàcc bu baax a baax euh, ba sax peut-être yenn mesures yi restriction yi ñu tàmbali kaa wàccee. Euh, mais est-ce que amul fii bàyyeeku parce que kilifa yu bëri bàyyeeku la ñuy ragal donc est-ce que yéen a ngi téye ba tey ci sensibilisation boobu euh, pour bañ euh, reprise ndax gis nañu yeneen réew dañu bàyyeeku woon ndax daf yëf yi dafa wàññeeku woon Chine sax demoon ba jeex mais bàyyeeku taxaat yëf yi ñëwaat ba tàmbali ne la jaaxal ban taxawaay ngeen am tey. waaw bu ñu bu ñu naagu. mooy man dama jàpp ne mbas mi mi ngi fii man la ma jàppoon démb ca début ba moom lay jàpp ba tey kër gu ci nekk dama wax ne kuy dugg na nga raxasu fooy dem yoral sa masque bul yor benn masque de yoral ay masque ci sa poche xale yi nañ leen kon di leen sensibiliser donc tant que neewuñu mbas mi jeex na ba nit ñi reconnaître ko dama ne la ñu jéppo jàppoon bu nu ko bàyyi ba keroog ñuy def zéro cas loolu nag jigéen ñi dañ surtout ñu si am solo lañu jigéen ñi nattatuñu seeni mbootaay bàyyi nañ ko te ku nekk xam na ne jigéen si liñ naan li ñu organisé dafa mais léegi pratiquement sax gisatoo xew yi xew bu si nekk da ngay def rek joxe sa ndootal wàññeeku kon au niveau de Kër Massar dinañu continuer effectivement xawoon na am relâchement benn moment mooy temps Korite yi. fête yi passé tabaski bi tabaski bi nit ñu commencé woon nañu mel ni luy bàyyeeku ndax ñun taxaw nañ ci marché yi waa ak apport UCG mais daanaka nit ñi bu ñuy dugg si. dañuy fàtte ne sax war nañu sol masque mais dañuy continuer sensibilisation yi ndax foo gisul police bi gendarmerie ah yow responsable li nga man rek mooy ñaaxaat ñi nga xam ne dañoo nekk ci sa disposition pour que ñu continuer les mesures barrières. wax nga ko sànq jeunes yi surtout euh, ñoom ñoo gën xëy na. Euh, fës ci transmission bi parce que mag ñi demuñu dikkuñu waaye ndaw ñi tout le temps ñoo nekk en activité di dem di ñëw fekk mag ñi ci kër gi euh, ak xale yi ndaw yi euh, couche boobu yéen ban aspect ngeen leen jagleel si seen sensibilisation. non léegi yaakaar na ils sont très conscients parce que bu fekkee da nga nekk sa papa ak sa yaay ñu ne mbas mi du ko paal yow war nga xalaat ne sa pap bi moo yor kër gi wala sa yaay ji. amul ku bëggul waajuram moo tax fi mu ne nawetaan déggatoo ko fii Kër Massar football yi ngay gis sax daanaka football bareetu fi donc loolu moo tax euh, jeunes yi ñu gën leen di sensibiliser wax naa ko si njëlbeen gi football làmb fii nga gis ni làmbal la la dañ ko tëj ça fait presque cinq mois ubbiwul tey jii lañ koy door a bay caabi ji man maa ko tëj changé caabi ji tëj ko dama ne tant que Covid bi jeexul kenn du fi entraîné ñoom di nga di nga visité léegi heure bi daana fekk plus de cent mbër nekk fii di entrene mais depuis Covid bi dama changé clé bi bu ñu bëggee entrene dama leen ne dem leen géej géej ji soriwul bu ngeen entraîné ba pare ngeen ñibbi si mais fii duñ fi mën a dajaloo parce que mënuma nag di sensibiliser bu ngoon ko jotee ñu ne waaw jaraaf kat waa këram yaa nga fa ca làmb ja dootul am sens boo liggéey ko bu ma demee bu ma ku ma ku ma bu ma dajeeg nit wax ko dana man waaye nit ñaa ngi fee loolu la ñuy wax loolu moo tax tey sooy natt seen action yi ngeen jot a def euh, li ngeen jot a liggéey yëpp ci mbas mi jàpp nga ne am na njeexital soo xoolee situation bi tey fii ci Kër Massar. wax am na njeexital parce que boo boo dee déglu rajo bi lu ngay déglu télé nga déglu ni cas yi daa bare ñun dañ daan tiit sax cinq cas communautaire te ñu si bare bu ñu déggee Kër masaar Kër Massar dafa rëy cent quarante quartiers c'est missible pour nga contrôler Kër Massar Kër masaar moo ëpp Guédiawaye di dem te am na quartier yoo xamante ne si sax amaguñu ay délégué de quartier donc loolu cas yooyu ñun daf ñu doon tiital mais léegi wàññeeku na wax dëgg yàlla parce que booy suivre bulletin bi di nga xam ne Kër Massar nous avons fait de gros efforts kon dañuy ñaan yàlla aussi bu ñu naagu ñu continuer eh, te loolu aussi dinañ ci gën a buñ fi jegee nii dinañ si gën a mën a interpeller waat jigéen ñi ñu ñaan yàlla rek comme ñu ngi si yoonu Touba di seeti suñu sëriñ ba eh, xalif général am ah, moom it dégg nga mesure yi mu jël te ko xam xalif bi la mu wax ne ku ñëw ah mesure bari yi nañ ko respecté kon ñi ngi ñaan yàlla aussi ñi nga xamante ne si dañ fiy jóge di dem Touba nañu sàmmante ak li sëriñ bi wax le port du masque bu ñu demee aussi ca foofu ñoo xam ne contexte yi léegi ak li amoon ak li du benn kon loolu aussi il faut que ñu ñu ñu àggaleen ko xanaa ñu ñëw ak yow jaraaf ci programme EMAD bi ak euh, ONG Plan International xam naa ne dara umpale ci. Mhm. Euh, noo ko gisee ak seen taxawaay tey xëy na bu doon am na luñ ca war a yokk. Mhm. lan lay doon ci sa xalaat. xam nga Amath moom ki ko jiite Abdou Khadre ñun dañu ko xam bu baax mu nekk nit ku baax ku am yar euh, xam li muy def xam fi muy teg tànkam bokk nag ci collectivité yor fi ay responsabilité dama wax keroog ne États-Unis bu dee renseignement. ñoo ëpp renseignement ci monde bi su ñu demee ba ñu organiser Sorano ñoo di benn investissement teg ko ci loxoom def nañu enquête sur la personne d'Abdou Khadr ak la mu jiite directeur bi toog malgré qu'il est jeune responsabilité may na ko lu mu bëgg xam si nit xam ko parce que je sais liir entre les lignes mm-hmm. kon collaboration boobu ñun suñu xel daf si dal ñu am liggéey bu am solo nag bu ñuy def ci collectivité bi ndax bu ne collectivité bi nañu jàpp ne 121 villages la limité wu rek ci biir Dakar presqu'île du Cap-Vert lañ doon wax ba sàgg ñu dul ci ne région de Dakar bu jëkkoon DG moo amoon dakaar gore avant mu nekk région de Dakar Kër Massar 1958 Kër Massar faisait 668 hectares la partie A et la partie B. nous sommes aujourd'hui en 2020 kon nu ñu tollu actuellement mm-hmm. récépissé yi ñu ngi fii forêt classée bii ngay wax nii ñuy wax dinaa si ñëw ci beneen émission mm-hmm. appartient à la famille Diop yoo xam ne ñu ngi fii toog mm-hmm. effet de guerre moo taxoon ñu réquisitionné ko si suñu maam Malick Diop qui était un maire indigène la famille Ndiaye nekk fii kii tey moo fa nekk chef de village kon Kër Massar directeur démb la bu jëkkoon da ngay ñëw Kër masaar xëy na loolu sax ci biir émission bi du objet émission bi mm-hmm. mais nag pour wax ci Kër Massar ni mu toll la ni mu tollum dëkk ak ni mu tollu léegi mm-hmm. potentialité yi nga xamante ne si tey Kër Massar am nañu ko ay doomu Kër Massar di fi yeewoo ñenn nañu yor ndombal tànk dañuy ñaan seen ndombal tànk yooyu gër yàlla ful ko mm-hmm. intérêt wu Kër Massar la ndax manqué woon nañu kon taxawaay boobu dinañ ci gën a taxaw dinañu gën a jàppale jigéen ñi dinañu gën a jàppale jeunes yi ba nga xamante ne si lépp lu ñu mettoon ci Covid bu ñu fi jógee yàlla may ñu si jàpp. xanaa ñu jeexal ak euh, programme bi tey looy dolli ñoom Abdou Khadre euh, Jaraaf bu fekkee ni euh, ci seen liggéey gis nga ci xëy na lu xaw a manqué wala loo leen di félicité ndax dañoo indi benn particularité mooy seeti kilifa diine yi ak kilifa aada yi mënoon nañoo yem ci feebar bi jël ay médecin wala xool yeneen neneen nu ñu ko defee waaye noo gisee ñoom option bi ñu jël seet si ñu mel ni yow ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni ci diine ak ci aada lañu leen ràññee. mais xam nga ñoom dañu ànd ak jamono. bu ñu ma mosaan invité démb laa jógee Dakar invitation fii laa jógee dama teel a jóg j'ai def naa trois heures de temps ci autoroute bi avant may àgg RTS c'était c'est c'est normal ñoom bu fekkee dañu déplacé wu ak matériel bi yépp ñëw fii ba Kër Massar kon dama ne di gërëm di sant bu ñu invité woon dakaar sax dañuy dem kon lii ñuy def tey askan wi lañ koy defal kon yàlla na leen si yàlla jàppale. su ma amee lu ma leen di reprocher mooy dama leen di encourager du ma leen reprocher encourager laa leen di def ñu gën a góorgóorlu ñu ñaan suñu borom mu gën leen jàppale gën leen a booleeg seen i partenaire yéen tamit ca rajo bi ngeen nekk yàlla leen yàlla gën a jàppale ba ngeen am seen télévision bopp eh, ñi nga xam ne enquête 221 ñoo am télévision boo xamante ne si télévision bu mag la comme ni ko ñëpp am jërëjëf jaraaf ñu jeexal euh, première partie bi kon euh, ñu ngi koy waaj jeexal xanaa ñu tëj ko ak sa message ci euh, askanu lébu ci Sénégal ci àddina ñeel mbas mi mu nekk message bu foor boo xam ni yaakaar naa ne bokk na ci li yëkkati EMAD tey ak plan international ak ñu fi daje ñëpp nga baaxee ko ñi nga xam ne ñoo lay déglu. ñuy sant yàlla suñu borom mi nga xam ne moo fi indi Covid bi. moom mi nga xame ne moom man yàlla na ko fi jële yàlla nañ toog ba bokk si ñi di ko nettali peste amoon na fi mag ñaa ngi koy nettali ba tey kon li ñu tëjee rek mooy ñu jokk góorgóorlu yokk ñaan yi ak mesure barrière yi surtout mesure barrière yi li ñu koy fàttalee mooy foo mënti jóge boo duggee sa kër demal nga raxasoo ndox ak savon fooy dem yoro sa masque ci sa poche fooy dem bu fekkente ne yoroo masque jéemal la utiliser gel antiseptique loolu daal ñu ngi koy gën a ñaaxaat di waxaat ne mbas mi mi ngi fi soyons prudent mm-hmm. loolu lay tëje allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërëjëf euh, jaraaf euh, Mactar Diop euh, ñu gën ko xam ci jaraaf Aldo dinañu ñëwaat ak yow xam naa ci kanam ci parti bi ñu jàkkleel wàllu économie ndax kii di Amadou Diallo nekk directeur FONGIP kon mi ngi ak ñun war a itam ñëw ci riposte économique bi surtout fii ci Kër Massar taxawaay bi nga xam ne am na ko directeur Amadou Diallo. ñu ngi lay euh, nuyu euh, di la dalal jàmm ci ànd aar aaru amaat mbégte bu baax euh, jàkkaarloo ak yow waxtaanee loo xam ni njariñ kese lay nekk ci askan wi ndax tey fi mu ne yaakaar naa bu weesoo jàngoro ji koom-koom moo gën a ub bopp yi. waaw moo ngi lay gërëm di la sant xam naa deuxième édition bi mooy ñu ngi daje di nuyu jaraaf Kër Massar di ko jaajëfal si dalal bi fii di nuyu aussi le président de l'EMAD Abdou Khadre euh, ci liggéey bi mu nekk di def liggéey bu am solo la parce que mbas bi euh, dafa ñëw rek daaneel àdduna yëpp daaneel suñuy koom-koom donc conséquences yi conséquences yu rëy la tey soo xoolee ci wàllu euh, tourisme hôtellerie yi temps yëpp débat yi mooy ñi ci ñi ñu commencé licencier ci entreprise yi donc am nañu ay perte ay milliards et donc vraiment lu diis la ci askan bi lu diis la ci wàllu koom-koom loolu moo tax xam naa kilifa gi président Macky Sall bi bas bi duggee ñi liggéey ci euh, benn programme bu ñuy ne programme de résilience économique boo xam ne euh, jubluwaay bi mooy nu ñuy fexee ba wàññi coono entreprise yi sa xam nga soo xoolee tailleur yi presque fet yu fi jàll yëpp ñawuñu donc nit ki day toog du am lu muy liggéey donc du am lu muy yóbbu këram Euh, perte nañu ci wàllu commerce cinquante milliards ci wàllu tourisme cent milliards la dëkk bi perte te jeexagul donc xamuñu kañ lay jeex euh, ci wàllu industrie cinquante milliards pareil donc ay milliards et milliards la Sénégal perte ci ci six mois yi sept mois yi donc dafa doon lu yéeme ci àdduna nag waxatuñu aussi par exemple soo jëlee États-Unis ci quel un mois perte nanu vingt millions d'emplois imaginez donc dafa doon vraiment lu yéeme donc président xalaat ci jox euh, le ministère de l'économie euh, ñi tegal ko benn plan de résilience donc plan bi euh, benn plan global la nag mais bëri na ay pàcc am na pàcc wàllu social xam na luñ ci jot a def 60 milliards ci ci ci ci ceeb bi 70 milliards ci hôpitaux yi pour dimba pour faire test yi am nga test yi duñ ko fay mm-hmm. donc téye malade yi aussi ci hôtel yi loolu yëpp état moo ko fay mm-hmm. lu bëre la Euh, donc ci wàllum transport soo xoolee aussi am na lu ñu jox euh, sectoriellement secteur bu nekk am na lu ñu la jagleel loo xam ne dañ ko def aide directe huit milliards ci école privée yi aussi donc doon programme boo xam ne laal na couche yëpp maintenant mu des entrepreneurs yi ci entrepreneurs yi mu dégager deux cent milliards mooy programme de résilience boo xam ne pour financer les entreprises impactées la donc loolu nag euh, mu dënku ko ministère de l'économie ñin FONGIP falan mu mooy suñu patron euh, ñi dënkuñu ko nag pour ñu mën a accompagner entreprise yi ci programme boobu pour dimbale leen ñu am yi pour bu nu mun a licencier seen seeni i seen i employé mm. donc euh, loolu la président teg ci loolu lañ nekk ci loolu lañu lëkkaloo ak EMAD parce que EMAD doon ay acteurs yoo xam ne xam nañu Euh, les acteurs économiques sociaux yu nekk ci suuf parce que dañu am ay relais communautaire donc relais communautaire yooyu dañuy dem ci terrain bi di sensibiliser dañu toog xalaat ak ñoom waxtaan ne ah yéen puisque vous avez des relais communautaires nañu waxtaan ak ñoom former leen ci produit yooyu pour que ñu mën a waxtaanee économie tuuti donc mbas bi su jeexee il faut ñu xalaat nu ñuy relancer suñu économie et donc produit yooyu ñooñu leen ko jagleel donc ñu ngi def protocole bi euh, semaine dernière rek def nañu benn atelier boo xam ne invité nañu ay entrepreneurs yu bëri ci Dakar Plateau expliquer leen produit yi wax leen procédures yi nu nuy fexee ba am ci bénéficier wu ci produit yooyu donc euh, waa Kër Massar aussi man personnellement am na lu bëre loo xam ne dinañ ci dellu ci groupement de femmes ci jeunes yi lu nu nekk di def loo xam ne mooy tax nit ñi ñoo xam ne mbas bi daaneel na seen seeni seen koom-koom ñu mën a jógaat ñu mën a tàmbaliwaat liggéey bi justement foofu laa la doon bëgg a ndax tey ku wax Sénégal wax euh, économie sa xel ci secteur informel bi lay njëkk a dem muy ñi yore salon de coiffure ñi nga xam ne ay tailleur la ñu ak ñeneen ñoo xam ne xëy na dañuy xëy di taaba taaba pour lu ñu yóbbu seen kër ñooñu moom mbas mi dafa ñëw rek mbas leen parce que dañu tere woon par exemple jaay ci rond point bi ka fa yoroon kantinam wala doon taxaw di ambulant euh, kooku amatul lu yóbbu këram xëy na état it loxoom mënta jote fépp yéen ñi yor fond jip état am itam lu mu leen dénk ci wàllu woowu Kër masaar gi ñu nekk tey la ñuy dooree ndax bay ci sa wewu tànk lan ngeen leen jagleel loo xam ne tey ñoom bu ñu ko déggee mën nañoo am yaakaar ne dinañu jóg ci situation bu metti bi ñu nekk. d'accord donc xam nga acteur économique yooyu euh, am na deux produits yu ñu teg yoo xam ne dañ ko jagleel ci entreprise yooyu donc ñëpp ñoo xam ne. seeni doole reyul noonu ci wàllum entrepre entreprise donc les petites et moyennes entreprises lañ leen di wax les TPE même très petites entreprises mooy comme booy wax couturier yi euh, groupement de famille jeunes yi et cetera dafa am produit bu nuy nekk kiraay liggéey boo xam ne moom lanu teg teg FONGIP euh, produit boobu nag dañuy wax képp koo xam ne entrepreneur nga soxla nga financement pour nga mën a fay sa courant mën a fay euh, euh, say say matière première pour nga mën a fay ñoo xam ne ñooñ ngay liggéeyal produit boobu lañ lay jagleel donc da ngay ñëw FONGIP ñi rempliral la benn fiche euh, ñi jël sa dossier jox ko banque yu ndaw yi dañu jël xaalis bu bare ci deux cent milliards yooyu dañu jël presque dix milliards yoo xam ne dañ ko jagleel ci banque yu ndaw yooyu donc dañu jël xaalis bi jox leen ko ko nangeen financer groupement de famille jeunes yi tailleurs yi couturiers yi et cetera donc produit boobu da ngay ñëw ñu defaral la dossier euh, au fond yëpp nga déposé ko ñu yóbbu ko ci banque yu ndaw yi donc produit boo xam ne la mën nga dem ba nga am dix millions de de financement euh, diir bi euh, mën na dem ba trois ans ba 5 ans mu so te suñ la ko joxee aussi doo commencer rembourser dañ lay may 6 mois ça dépend banque bi mais au moins dañ lay may 6 mois yoo xam ne da ngay ko tàmbaliwaat sa liggéey balaa ngay commencer rembourser taux yu aussi taux yu raisonnable la donc c'est maximum 8 pour cent lañ lay jox euh, donc dafa doon produit boo xam ne am na solo ci secteur informel bi képp ku ko soxla da ngay dem FONGIP nga déposer sa dossier ñu fexe ñu kii la donc ci Kër Massar nag man bon man maa jël sama initiative personnelle di ci liggéey Euh, am na sa ñu fi àndal ñoo xam ne ay groupement de femmes yoo xam ne accompagner nañ leen yàlla def nañu lundi bi rek jot nañu seeni financement donc commencé nañu liggéey euh, donc loolu la dañuy produit bi vraiment c'est très adapté parce que ñoo xam ne dañu impacté liggéeyatuñu dañ leen di accompagner ci loolu donc naa pour les grandes entreprises parce que ñàkkul Kër Massar ville bu ray la euh, jaraaf mu ngi koy wax 140 quartiers vraiment départ d'ailleurs président nee na daf koy départementaliser parce que dafa rëy benn nit attanu ko dafa rëy dafa bëre ay ay ay tolof tolof donc il faut que euh, euh, te ñàkkul am na ay entreprise yu mag entreprise yu mag yooyu nag suñu ñëwee aussi dinañ leen conseiller pour ñu jaar ci banque yi da ngay dem gis sa banque yi nga ne ko ah man dama soxla financement bu état bi teg ci banque yi boo xam ne dina tax ñu jox la produit boobu mooy kiraay banque produit bu baax la aussi donc pour les grandes entreprises dañuy jaar ci banque yi pour secteur informel bi da ngay ñëw FONGIP ñu defaral la sa dossier xool financement bu ñu lay jox ñu jaar ci banque yi de banque yi aussi banque yu ndaw yi dina ñëw visite ce serait bien que <laughs> euh, Savara sa mun na mun na euh, certifier mu wax procédure c'est un exemple type boo xam ne dañu dañ ko woo mu ñëw FONGIP ñu defar ko dossier après ñu dem visiter fu mu nekk xam fu mu nekk lu mu bëgg def et cetera ba tey yàlla def ñu jox ko financement am. ñàkkul am na benn tailleur wala benn coiffeuse boo xam ne mi ngi déglu ne ah euh, financement kat pour nga jot ci da ngay am garantie mm. donc nan laay def peut-être pour am si aw lu ma joxe garantie est-ce que côté boobu état bu Sénégal assuré na ko euh, sénégalais yëpp mun parce que am na côté ko mun a joxe garantie mais am na ko xam ne munu ko. waaw fonds yi loolu lañ ko tegee soo déggee sax fonds de garantie la fonds de garanti des investissements prioritaires donc fonds de garanti la ñëpp ñoo xam ne ñu ngi leen di financer soxla nu garanti parce que ñin sax ñooy def garanti donc euh, loolu aussi je les rassure. Mm. parce que bu ñu ñëwee 2012 président daf ñu dënkoon ñu xalaatal ko ci ci wàllum euh, financer acteurs yu ndaw yi parce que suñu bëggee am koom-koom bu bu taxaw koom-koom boo xam ne mu ngi dox il faut que acteur yu ndaw yooyu ñu jot ci financement yi donc loolu mooy gàllankoor suñu koom-koom Sénégal donc loolu moo tax te soo suñu demee souvent dañ leen di laaj ay garantie yu ñu amul dañ lay laaj kayitu kër laaj la oto laaj la ay takkuwaay ci jigéen yi donc dafa métti donc tax état bi teg fonds de garantie bi donc Euh, koo xam ne euh, ku salon de coiffure la yor soxlawul garantie su ñëwee dinañ ko jox xaalisam mu démarré waat liggéeyam euh, ci wàllum trésorerie fonds de roulement parce que instant yi loolu la nit ñi soxla mm. après nag am na programme de relance bu nuy teg boo xam ne léegi ñi lancé ko mm. boobu sur la relance parce que instant yi lu am solo mooy ñi fexe ñoo xam ne mbas mi daaneel na seen entreprise ñu mën a souffler waat tuuti mm. ñu jox leen fonds de roulement ñu fay seen électricité mm. fay seen i employé jëndaat tuuti matière première commencé waat léegi ñu bëgg investir nag après mbas bi loolu dinañ ci mun nañ ci xuus tuuti encore parce que des secteurs prioritaires mm. yoo xam ne état bi dina ci dugal xaalis bu bëre lu mel ni mbay mi lu mel ni éducation lu mel ni santé parce que mbas bi lum ñu wonal mooy il faut que dëkk bu nekk nga compter si say propre moyen tey kenn mënatul gënn Sénégal dem faju kenn mënatul gënn fii même jàng étudiants yi instant ya y a beaucoup d' yoo xam ne amaguñu seen visa donc euh, il faut que ñu mën a tabaat suñu économie ñun sax ñi liggéey ci ñi defar suñu agriculture ñoo ñooñaal ko def suñuy industrie de transformation fexe suñu hôpitaux yi ñu am niveau bu baax boo xam ne kenn soxlawul dem France pour faju ji Euh, donc loolu moom vraiment plan de relance bi moo koy gérer incha allah. ku mhm. wax financement tamit wax ay jafe-jafe nit ki mun ngeen ko jox xaalis mu dem ba mu yàgg xëy na liggéey bi ni mu yaakaaree woon doxewul noonu euh, ki ngeen jox xaalis mu am tolof tolof naka ngeen di def ak moom. alors yaa a deux cas xam nga projet bu nekk am na risque entrepreneur entre loolu moo tax ñu teg garantie bi soo demee ba am gàllankoor fekk yow dafa da feebar xam nga entrepreneur bi mun na xëy mu feebar. liggéeyam yàqu nga dem yàlla def euh, euh, nga am client fayu la et cetera donc yooyu yëpp day am ci ci ci entreprise loolu moo tax ñu teg fonds de garantie bi maanaam suñ la garantiré acteur yu ndaw yi ba 80 pour cent su demee par exemple ba des 1 million munoo ko fay 800000 bi mooy 80 pour cent bi FONGIP moo koy fay banque bi yow dan yow da ngay fay 200000 euh, bu des bi donc noonu lay doxee c'est-à-dire day tax Euh, état bi soulager entrepreneur bi donc loolu mooy principe garanti donc duñ la topp maintenant nag lu ñuy ñaan ñi ñi mooy nan ko doxalee yoon parce que aussi euh, ñu ko soxla dañu bëre mm-hmm. suñ la joxee fexeel nga rembourser pour que sa mono sa morom mun ci am waaw pour que ñu mën a avancer aussi parce que su nekkee xaalis bu ñu gënee rek nit ñi dañ koy jël du ñu rembourser euh, dëkk bi du avancer ñëppay sonn donc c'est important Euh, ñu sensibiliser aussi entrepreneur ci loolu pour que ñu mën a rembourser xaalis bu ñu jël et puis soo sooy liggéey ci banque nga rembourser rek sa financement day yokk soo jëloon tey un million nga rembourser suba soo ñëwee nga ne banque bi un million cinq da lay jox deux millions noonu ngay def nga progresser bu benn jour nga mun a am cent millions deux cent millions loolu moo gën ko ñu jox la un million nga yàqu ko mu jeex suba encore waaw kenn du la nemee jox donc loolu baaxul te loolu doxalul réew mm-hmm. donc vraiment sensibilisation boobu dañuy wax acteurs yi pour que ñu mën a rembourser mais fonds mu ngi fi état mu ngi fi président jox na ay instruction ni ngi accompagner ay ay ay porteurs de projet. peut-être lu ngeen di xaar ci EMAD ak seen collaboration lan nga yaakaar ne aussi bu ngeen ci àndee ak ñoom dina yokk ci programme bi. waaw dina ci yokk lu bëri ci wàllu information surtout parce que aussi dañuy waxante dëgg ñëpp xamuñu programme bi. Euh, ñu ngi doon di def formation bu ñu doon di def semaine dernière kilifa gi mu ngi yoon foofu Aldo moom gis na. donc euh, c'est important que ñu relayer information bi pour que yi ñu xam que état bi am na li mu fi teg donc souvent problème boobu la ñu am ci collectivité territoriale il faut que ñu fay yëngu ñu mën a dem ci kaw ci état bi li muy def ñu mën ko xëcc wàccee ko ci gox-goxaan yi wàccee ko ci ci ci nit ñi ci jigéen yi xale yi jeunes yi donc ñoom seen rôle loolu la puisque dañu am ay relais communautaire Diourbel Touba donc ils sont partout pratiquement suñu formé seen relais communautaire yooyu ñooñu dinañu suñu demee ci kër yi dina dinañu informer parce que di dem ci kër yi nga fekk benn jigéen mu doon di jaay euh, ndékki di jaay reer mënatul soo su ko expliquer FONGIP su ñu ñëwee même mille sax suñ ko joxee dina redémarrer business am donc ñoom seen rôle loolu la ci protocole bi en tout cas loolu la ñuy def pour que ñu former leen ñoom ñu mun a relayer information bi au niveau de la base parce que politique boo gis ñi lal ko nit ñi moo tax ñi def ko donc su nekkee nit ñi mënuñ ci jot amul euh, njëriñ donc c'est important euh, ñu continuer ci di liggéey ci protocole boobu c'est très important parce que c'est innovant aussi parce que man ça fait depuis 2013 maa ngi ci liggéey ci wàllu financement mais c'est la première fois que ma gis une ONG mm-hmm. et c'est très bien qui s'engage à accompagner économiquement les acteurs de base donc dafa am solo mm-hmm. Euh, du bettee ci EMAD ndax développement daf leen ñor bokk na justement ci seen dénomination kon euh, ñu lay gërëm bu baax euh, Amadou Diallo directeur des opérations bu FONGIP jaraaf ñu ñëwaat ci yow ndax da nga jaboote ñu bari surtout ay ndaw li ko wane mooy ñi toog ci jotaay bi ñu ci bari nekk ay acteurs de développement bokk ci ay GIE yore itam ay entreprise euh, yu ndaw wala yu yemambaay di euh, petite et moyenne entreprise noo gisee programme bi nga xam ni FONGIP la ko état dénk mu jëm ci financer surtout ci mbas mi. waaw euh, di remercier président ci confiance bi mu jox suñ suñu jarba d'abord jox ko koo xamee ne suñu dëkkandoo la di xale bu yaru ndax man nit yar bi daf si am solo lool ak expérience bi mu si am xale la mais am na expérience ci li muy def yàlla def nag muy collaborer ak Abdou Khadre yoraanaat li ñu gën a soxla ñun tey Kër Massar moom wax na ko sànq parce que ñu bari dañ daan bëgg financement bu ñu demee ci banque bi dañ lay laaj sa kayitu kër. garantie ñoom nag. këyitu kër goo nga doon joxe ñoom ñooy nekk si sa place yow remplacé la fa muy état mooy fonds de garantie jigéen ñi soxla nañ ko jeunes yi soxla nañ ko bu dee espace am nañ ko pour def ganaar bu dee espace pour agriculture am na fi jigéen ñi ñu si bari tey seen salon de coiffure dañ ko tëj ñenn ñi seen salon de couture dañ ko tëj su ñu defoon tey recensement bi di nga ne c'est inadmissible puisque Kër ma sar capital la. li fi nekk ci potentialité dafa bari te mbas mi euh, freiné na si lu bari kon tey bu yàlla defee FONGIP ñëw ma dem ñëw keroog daana Kër Masar yi biir nañ ko tey jii am na nu mu doon demee tey jii arène bi laay ubbi day fees del mais nag bu keroog yi dina nañu waaye mais ñii dañuy xanaa dañoo fàtte ne ñi ci Covid bi. moo tax ñu yemalee ko nii xam nga weddi gis bokku ci moom bu mu ñëw daa am ñu mu àndal te ñi ñu àndal am na si ñoo xam ne jot nañu seen financement man mii di wax yow damay sant yàlla xam nga lu tax man ci sama poche laa doon génne di jox ay 500000 500000 bu fii may wax ak yow am na ñoo xamante ne si 250000 sax jotaguma ko nit ki boo koy dimbali mënoo ko fayeeku mënoo jox nit ki 500000. groupement euh, ñu toll ci situation bu ñu jaar bu ma leen séenee ku ma ci séen ngay ñëw sax damay jaar man loolu ma taal sama moto nga dima woo ma mel ni dégguma ko kon tey bu ñu amee lii dañuy sant yàlla euh, directeur jërëjëf ak képp ko ànd ak yow ak képp ko lay accompagner yal na li yàlla defal ndam seen ànd bi ndam rek lay doon bu si yàlla àndee confiance ni ma ko waxee keroog Dakar confiance bi grand sëriñ am si ñun et ba lu am mu jiital ñu si confiance boobu la ñuy jéem a respecté fonds de garantie nag bu fekkee daanaka dañu ñëw ñu jàppale la am na sa moroom moo xam ne bëggoon na financement amagul la ñu la jox góorgóorlu ba fay boo liggéey boo laajaatee. qui paie ses dettes s'enrichit kon loolu lu am solo la kon yàlla na yàlla dolli sutura monsieur Diallo ak ses collaborateurs ak lii lañ ci soxla woon tey kon yéen bu leen fi géej dañoo bëgg daal bu ngeen fi dellu siwaat ñu ne mbas mi jeex na tey jii daal euh, jaraaf invité na waa Mbot ñu ngay ndaw ràbbin ca arène ba te loolu yàlla mën na ko bu imaam yi ñaanee ba pare nag ñu dellu ci cosaan la ndax namm nañ ko lool namm nañ tàkku saan lu mbot namm nañ bu mbàkkand ak bu sanc ba yooyu mooy doxal lu doxal lu bari monsieur Diallo vous avez notre soutien ñu ngi lay félicité te dinañu la jàppale si sa liggéey bu si yàlla àndee jërëjëf. jaraaf nag mënu ñu ñëw ba Kër Massar tey te waxuñu ci départementalisation bi nga xam ne président annoncé na ko ni dëkk bi tëddee jafe-jafe yi ngeen di jànkoonteel def ko département lan la fi mën a soppi. lu bari ndax dañuy am suñu indépendance ndax Kër Massar mënatu ñëw boo taw si dama lay jox benn exemple. commune d' arrondissement ku lu toll ni Kër Massar ëpp Guédiawaye ñu naan commune de ñu ngi door a nekk commune lépp ñu doon dépendre ci ci Pikine département wu Pikine te Kër Massar mooy cosaan bi fii kon tey bu ñu demee ba ni président xalaat ne dama ko wax ba RTS laa ko waxee mooy leen lii courage politique dëgg moo ko mën projet bi projet bu yàgg la woon ñu di ko togg. xëy na am na yeneen communes yoo xam ne ñu ngi doon xëccu mais président du jël décision nii rek ñëw ne xaaral ma dem pour fer plaisir au à la population déedéet projet bu ñu yàggal bu yàggal woon mu demande ses conseils laaj projet bi ñu xam ne lii c'est faisable dama ne bu ñu fàtte ne ma man personnellement maa nekkoon motaaru président Macky Sall kon il a fait le ministère de l'intérieur ñoo doon àndoo di voyager il connaît bien l'administration jóge fi dem nekk primature kon nekkul koo xamante ni si day xëy xëy rek dal di ñëw daal ne Kër Massar def naa ko département déedéet da da doon daf ñu doon wax si li nga xamante ni si état jëloon na ko comme décision maire bi def ci liggéey boo am solo. population bi ne kii c'est une demande de la population moo tax dama wax ne lu mu jaral ses détracteurs loolu lu mu jaral keneen pour mu bañ a am ko jaral ñun ñu dëkk Kër Massar pour mu am. bu seetlu àndee démb loolu la lii laa wax département bi dina ñëw dina ànd ak équipement dina ànd ak lépp loo te yi ñuy wax nii lépp loo xamante ni si département laaj na ko day ànd ak moom parce que état day continuer di la accompagner kon loolu aussi ñu ngi leen ñu ngi ko si félicité moom ñu ngi félicité président de la république gis nga fii ngeen jaar ba ngeen egsi fii bu ngeen jàddoon tuutar di ngeen gis kalo karo yi tali karo yi di ngeen gis lampadaire yi te tali karo boo dem canalisation mi ngi jaar suuf dama leen di laaj ba ngeen déparé pharmacie 24 heures ba kenn ngeen ñëw indi cinq ndax xuus ngeen ci ndox c'est parce que da fi ñuy wane foofa la ndox ma nekk dañuy ñaan yàlla fii ngeen ñëw te ngeen fekk mel ni ba jaar fii bu ëllëgee ak projet wu état bi foofu aussi mu mel nii kon bu état defee lu baax ñun de am nañu habitude ci libu gi ku def lu baax ñu ne def nga lu baax kon booy état defee loolu ñu ngi ko ci sant di gërëm di ci gërëm nag président de la république président Macky Sall fàttewul benn yoon Kër Massar xanaa Abdou Khar ñu bàyyi la nga sànni ci ay kàddu ñu doog a tëj waxtaan bi li nga fi dégg surtout ci collaboration bi nga xam ne yéen a ngi koy uh, wàcc uh, wala tàmbali ngeen ko sax ak uh, ñi nga xam ne ñoo di waa FONGIP nga ànd ci ak Amadou Diallo di directeur des opérations bi ak li nga dégg fii itam jaraaf yëkkati ni kaddu waaw xanaa wax alhamdulilah rabbil alamin yoon bi guddoon na amoon na coono tuuti ak jafe-jafe wante satisfaction totale la ñu am rëccuwuñu lu ñu doon defee déplacement bi te xam naa ne yow rëccuwoo ko aminte rëccuwu ko waaw ndax déplacement bu am njëriñ la message yu fi génn message yu fort la wax nañu ci naka la population bi war taxawee pour ñu jëlee fi mbas mi wax nañu naka la ñuy taxawoo population bi nga xamante ne mbas bi gàllankoor na leen ak ëllëg itam naka la ñuy taxawoo entreprise yi pour ñu bañ a taxawaat te li ci gën a neex mooy li jaraaf wax waaw gëm naa ne message boobu dina dina impacté te impacte bi dina dina dina am njëriñ parce que collectivité lébu dinañ ko déglu teer yeex notable yi dinañ ko déglu te ñi jotul ñu jotul def émission ak ñoom dinañ ko répercuter dañ ko war répercuter donc vraiment dañuy sant euh, jaraaf di la di la di la dénkaat directeur nga jàppale ko ci liggéeyam ji di feddali kóllëre bi nga xamante ne moo dox suñu diggante yow jaar ci grand sëriñ Ablaye Makhtar di la dénk nag suñu ndaw ñi waaw Fatou Aminta pay xam naa euh, gàmmu mboot ndaw rabine ba ngay def si stade ba dañ koy teg ci loxoom rek <laughs> mu organiser ko donc vraiment moi je dis merci ak ñi fi teew ñëpp vraiment félicitations et que le travail continue pour une victoire définitive face au Covid. di remercier Plan International bu baax. jërëjëf Abdou Khadre ñu ngi lay gërëm euh, ci turu direction réew mi itam euh, ñu di la remercier ci confiance bi ndax rajo yi bari na fii bu la neexoon nga tànn ñeneen mm-hmm. waaye ñu doy la euh, nga ànd ak ñun également ci projet bi mm-hmm. ñu ngi la ci remercier di la ci gërëm yaakaar na itam collaboration bi du fi yem mm-hmm. di remercier ñi ñu dalaloon tey ci waxtaan wi muy Amadou Diallo directeur des opérations bu FONGIP gërëm bu baax nag jaraaf Mactar Diop ñu ngeen ko xam ci jaraaf Aldo Kër Massar ñu ñëwoon fi tey euh, tëj si ànd aar aaru ñaari weer yoo xam ne ànd nañu ko ak yéen di waxtaanee mbas mi mm-hmm. di dellu ñaaxaat ñëpp euh, ñu daal di fagaruwaat euh, ci jàngoro ji ndax wàññeeku na waaye jeexagul am na fu mu jeexoon ba ñu naagu waaye mu dikkaat sonalaat leen noon boo dul gis nag foo toll rek del fagaru ñuy gërëm bu baax ñi jàppoon ci wàllu technique bi di jaawo jàllo Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kaddu gi gërëm waa enquête 21 ñu ñu àndaloon également yendoo jàmm